Thank <laughs> you. Toujours dans votre acte du jour de ce 21 décembre 2023 sur la chaîne des grands événements VIP People TV suñ jógee aussi dañuy desaat foofu ca présidentiel 2024 bi ginnaaw bi nga xamante ñaari sénateur américain nekk fii ci suñu réew indi nañu daal benn résolution boo xamante ni ñu ngi ko dippee bipartite jëm ci élection yoo xamante ni yu pacifique la libre ba noppi doon yu équitable fii ci Sénégal di ko sàkku bu baax a baax sénateur américain bi nga xamante ni Jim Rich ak ki nga xamante ni Ha Idaho ak euh, ki nga xamanteni moy Ben Cardine ñom dal di ñaari membre imminent yo xamanteni ñom ak ki di président bi nga xamanteni ni yor commission sénatoriale jëm ci relations étrangères ginnaw buñu ñu ci ben communiqué vous xamanteni présenté nañ ko jëm ci ben résolution bo xamanteni bipartite madame manam daal di réitérer lepp lu jëm ci importance ba noppi jëkkandiku ci ay relations américano-sénégalaises indi ben appel bo xamanteni li du gouvernement sénégalais war organiser ay élections yu libre équitable transparente inclusive manam au jour du 25 février 2024 suñu sukkandikoo ci li nga xamanteni moy communiqué biñ jot ki ñu xamal nak di sénateur bi nga xamanteni moy riche moment bi nga xamanteni lepp lu jëm ci trajectoire démocratie fi ci Afrique de l'Ouest mi ngi vaciller wu jëm ci ay regards yo xamanteni tay mëna tourner ci ay élections yo xamanteni mi ngi ci jëm le 25 février fi ci Sénégal ginnaw bi nga xamanteni bép bépp citoyen boo xamante am nga ce poids pour ce rew mën nga choisir ki nga xamanteni moy mooy doon président en 2024 même sous des engagements président Macky Sall du briguer li nga xamante moy deuxième quinquennat l'eau lu xamante ni dafa anticonstitutionnaliste dina indi largement ben tàcc bo xamante ni wala standing ovation bu à rester pour que ñu préoccupé wu les lu jëm ci ñu tej di espace politique bi jëm ci répression bi nga xamante opposition politique bi manqué wu ñu ko jëm ci transparence bo xamante processus électoral da koy indi ba nopi dal di xayma ay élection yu démocratique en février 2024 ginnaw bi nga xamante mëna les solidifier lepp lu jëm ci ay avantages tukkandiku ci ay relations digënté États-Unis et Sénégal ginnaaw bi nga xamanteni ay alliés partenaires lañu ki nga xamanteni nak moy sen collègue bi nga xamanteni di président commission sénatoriale nek ci affaires étrangères de Michel Cardin nek ma ngi xamal dal li di Sénégal depuis plus de fukki at à muy une décennie bokk na ci ay démocratie yo xamanteni tay tey ñoo gën stable ci Afrique kon ñi di nan Sénégal amul démocratie je crois que contredire nañ leen demu ñu Mali demuñu Burkina demuñu Niger donc ki ko xamle dal mi ngi koy xamal dal ci benn tradition boo xamante ni dafa sukkandiku ci ay transfert de pouvoir yu pacifique yo xamante duñ ko jaarale ci arme duñ ko jaarale ci guerre duñ ko jaarale ci coup d'état mais yu démocratique la ñu seetlu fii ci Sénégal ginnaw nak bi nga xamante ni regretté na bép allégation bo xamante dafa crédible sukkandiku ci li nga xamante moy administration sénégalaise ba nopi dal di restreindre lepp lu jëm ci ay liberté d'expression indi li nga xamanteni moy liberté de presse utiliser ben système judiciaire bo xamanteni pour cibler ay opposants politiques ak ay militants yo xamanteni dañu bok ci société civile ba nopi dal di mettre en œuvre lepp lu jëm ci ay modification jëm ci loi électorale yo xamanteni dafa décider pour ñu réduire li di compétitivité yi nga xamanteni moy parti ak candidats yi bok ci opposition bi li nga xamanteni dal ay trouble lay mëna indi ba nopi États-Unis dal war na mëna surveiller lepp lu jëm ci déroulement li nga xamanteni moy élection yi ñu jëm ci atum 2024 ba nopi dal di jël ay mesures yo xamanteni mën nañu demander bépp compte ak képp koo xamante ni daal si sàppu démocratie nga sënku fii ci Sénégal mu doon loo xamante ni lu solidaire la pour peuple sénégalais ak ñi nga xamante ni dañu aspirer démocratie ba noppi daal di indi résolution boo xamante ni mën na xam ni que Sénégal comme bokk na ci benn démocratie boo xamante ni moo gën a stable fii ci Afrique ba noppi daal di saluer liggéey bii nga xamante ni organisation société civile sénégalaise déjee nañ ko kii nga xamante ni mooy réforme électorale ba noppi daal di exprimer également lépp lu jëm ci solidarité ànd ak euh, diggante peuple sénégalais daal di encouragé lii nga xamanteni moy exercer droit de vote baña a abstenir ci ben acte de violence bo xamanteni tay ci prochaine élection yi meun nañ ko gis en tout cas moy li nga xamanteni ni ñi di sénateur yi nga xamanteni présent nañu fii suñu réew muy ñaari euh, sénateur américain daal di sukkandiku daal ci ben résolution bo xamanteni ni bipartite lañ tudd jëm ci élection yu pacifique libre ba nopi équitable fi ci Sénégal ginnaw biñu ñu ko dal Sénégal bokk na ci réew yi gëna stable ci walu démocratie fi ci Afrique ginnaw bi nga xamanteni suñu les lignes wër di Mali Burkina ak Niger kon nañu sant à bu baax baax plateau yi ñuy tok di manipuler di fen ci walu démocratie té ku ne euh, lu ne fang kenn du ko <laughs>